sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu sama bokki soxna daara yi fi nekk yëpp. nee na mi ngi nuyu bokki soxna daara yi fi nekk yëpp. ak sama bokki ndongay daara yi fi nekk yëpp. nee na ak mbokki ndongay daaraam yi fi nekk yëpp. ak sama bokki taalib yi fi nekk yëpp. nee na ak bokki taalibeem yi fi nekk yëpp. di jiital ci nuyoo bi. nee na di jiital ci nuyoo bi. soxna Maymuna Mbàkke bintu Seex Abdulahat Mbàkke nee na nga xam ne doomi sëriñam yi fi nekk soxna may mooy seen kilifa nee na mi ngi jaarale nuyoo bi ci moom nee na mu jaar ci soxna maam Maree Mbàkke bintu Seex Sooyu ak soxna Kunta Mbàkke bintu Seex Muhammadu Faadal Mbàkke ak soxna Baali Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul taxa Mbàkke xalifa général de Mouride nee na ak doomam yi ci des nee na bu ci tuddee soxna maam Anta Mbàkke ak soxna muslimu sëñ Moodu Busa Jeng ak soxna ma Awa Mbàkke nee na mel na dina yóbbaale ñu ci des ñëpp nee na fii mu toll de fii mu toll amatu dara lu mu fi wax nee na li mu war a wax lépp nee na borom xam yi fi nekkoon wax nan ko ba mu jeex nee na li waral jataay bi daf koy tënk nee na yëg sëñ Touba ak sant sëñ Touba ak fas yéene jëfandikal ak sëriñ Touba nee na gàttandu bisam bi ndax gan ku ko fonk da koy gàttandu nee na bu dikkee nga ganale ko buy dem nga gunge ko. nee kom bisam bi waajal ko moy li waajale ko xam-xam ak alxuraan nee na jàppalee ko cheikh Mamadul Muntaxa ci liggéeyam bi nee na rek mo waral jotaay bi nee ta te jotaay ne ban ko tàmbalee ba mu jeex nee fi lo ne bu len seigne touba ñu reccu lu doon defe jotaay bi nee lepp li liñ doon wax fii mën nañ ko wax ci kanamu cheikhul khadim nee na wul xam-xam ak jefe ko nee jang alquran ak jangale ko ak soññ ñi koy jàngale nee na loolu mooy liggéeyab seex Mamadul Muntaxa Mbàkke nee na da leen di jajeufal rek nee na di soññ ñepp ñu maase jàppale seex Muhammadul Muntaxa ci bisu seex ci bisu cheikhul khadim bi. di gàttandu gan ñëpp nee di gàttandu gan yëpp nag séentu gan ñëpp nee na di sentu gan ñep nag ñaan sëñ tubaa ñu ñëw ci jàmm nee ñaan seigne touba ñu ñew ci jamm nek fi jamm Nenek fi jàmm dellu ci jamm dellu ci fa jamm fekk fa fi jamm bàyyi fi li jaaxal ñep li jaaxal safar bi nee safar bi yalla na tawadi yalla yi tawadi na mu dem te duñ ko gisati ak tawat ju mel ni moom nee na sëñ Tuubaa mi ngi koy defal àttan na ko man na ko loo ko sëf àttan na ko nee na dina ci joxe benn misaal rek nee na keroog rek mi ngi koy nettali nee dafa am ku dikkoon di wax ak sëñ Sooyibu ci mag ñi nee na mu ne ko damaa gis yéen nee na sëñ Tuubaa dafa mel ni fonku doon docteur nee na te yéen sëñ sooy bu da ngeen di fonk docteur lan moo waral loolu nee na sëñ sooy bu ne ko dañoo gisatut kooka nee na kooka da daan wax ak jàngoro ji boppam ne ko jàngoro bàyyil diw mu bàyyi ko ndegam gisatu ko nag ndegam gisatun ko nag nee na nan ko bàyyee baatin bi te saayir bi ñu xool docteur yi nee na loolee sëñ sooy bu def njàngale mu rëy rëy la nee na kon nan sagal sëñ bi ci saahir si ci saahir si te baatin bi ñu bàyyee ko sëñ Tuubaa nee na loolu junj bu xóot a xóot la nee na bu ñu demee ba jamono laaj ki fi nekkal seexul xadim takk maskaam nee na loolu wane aw yoon la waaye nee na sëñ bi xam na fa mu jëm nee na ci jamonoy pest ba nee na pest moo gën a metti choléra bi. nee na menn mbokk dafa amee pes nee na booba dañ lay ber ci garab lépp di la fa fekk nee na kenn du la ñemee jege nee na sëriñ bu mag bi génne ci kër njaareem gi nee na waaxu jëm ca waa ji pes bi daal nee na kilifa la waaye kooka nee na kooka daa jeex tàkk ci sëñ Tuubaa bëgg sëñ Tuubaa lool nee na bi ko sëñ Tuubaa jubee rek mu ne sëñ bi bul agsi nee na sëñ Touba faalewu ko rek di ñëw. ba jege nee na ba jege ko. mu ne ko dama lay bañ a wàll dimbali ma mu ne ko mbàkke bul dikk dama lay bañ a wàll dama jàngoro ji. bàyyi man rek ma dee. mu ne ko bàyyi ma rek mbàkke man ma dee. yow nga des fi fi. nee na yow nga des fi mbàkke di xetti li mbindee fi. nee na sëñ Touba dikk ba ci bopp bi. laal laal ko raay. nee bopp bi laal ko. mu ne nee na waa ji nañ sëñ bi nañ ñokket. yëgatul dara ci boppam. nee na yëgatul dara ci boppam. neena sawar sawar goo xamanteni bi ko jàngoro dalagul sa musta saware non neena na mu ànd waxu ànd ak Serigne Touba ba ci keur gi ne ko mbacke ku de ya ko ray ndega man nga li ku de ya ko ray serigne Touba momé nak du fi jog neena batinam du fi jog neena kep képp kuy màggal si neena sa pass pass ci serigne Touba tankay ñew ñëw nee na Touba lay gàttandu nee na sëñ bi raayoon mu tàgg ak pestu ba nee na baatil sëñ bàmba du fi jóg mukk ku fi ñëw moo lay gàttandu diirab li nga fi ñëw moom nga fi nekkal nee na booy dellu sëñ bàmba lay gunge nee na boo delloo sa kërin moom nga fay fekk nee na loolu rek la doon wax nee na sëñ te wax dara ndax ndigal liy jóge ci sëñ bu mag bi suba la koy ci jotal nee na officiellement rek. nee na sëñ bi nag naka jekk mi ngi koy digle nee na xanaa soññe rek nee na moom ba màggalug daaw gi jàllee la tàmbaliwaat waajal gii nee na mës am xalaat nee na lu sàmm li fi sëriñ bi bàyyi ak yokk ko ak baaxal ko nee na ba bu demee nee na bu delloo ci kanamu sëñ Tuubaa mu ne ko li nga ma dénkoone ngi ni nee na yàlla na yéex te mu yàgg fi lool nee na addi ji mu yore dikk neena li tax mu njëkk jox soxna Bali kado te soxna May Abdoulahat mag fi neena mom mi mii téwal khalifa central de Mouride neena motax mu njëkk ko jox neena limu gëna bëgg te bis bu ne mu xey ko jang neena mom la lay dakkal neena def ko kadoom addiyaam soxna Bali neena muy nooru daara ni neena tek ci téré bi nga xam Cheikh Mamadou Bassir ko def te xaayaatu Cheikh الخادم نانا موي منن الباه الخادم نانا نياار يي دال سخنا بالي موي سا نانا لي تي ديس نان